sëriñu TikTok waaye monsieur waxal ñu waxati yee si sëriñu TikTok xolal sëriñ lu mu xam ñëwal allah ba allahu akbar ak allu wàñña mu dëkkee allah allah bu allah allah yee na fajar allah allah waaye sëriñ bi ci kër gi lan la dëkkee ngi ci jàmm. ça eh, va eh, alhamdulilah. sëñ bi man de dama amoon problème. Hmm. jaaxle rek. Hmm. billaay ma ya. am yaakaar si yow nag. yaakaar ne su ma ñëwee si yow rek sama problème dina résoudre. yaakaar nga ku jara yaakaar. billaay. problème bi lan la. man daal sëñ bi sama sama jëkkër daal ki may sëyal dafa tàng tàng tàng am xadar coow guddi coow bëccëg man daal dama yaakaar sama nag moom dañoo dëddale tukki jam xam naa ne ah. xam ne ñeewantal la moo tax ma triste dama téye samay rangoñ ngi bañ a jooy ndax kilifa du gaaw a dem waaye gis naa ni ni naka deet gi mu ak ni muy sekk ak yow ah. bu ci dóor yim lay doo gis ah, na dóoruma de mais da ngay teey seet yenn saa day wane lu ñëwagul dina la dóori loolu lay dànkaafu dina la dóori bu ma waxee dóori tekkiwul ne déwri daa ñëw léegi ah man daal mosuma dóor waaye daal tàngaay bi mu àndal man man daal yaakaar naa sax man moom am na lu ñu def man moom sama diggante moom li bëgg daal mooy nga defal ma si ay ñaan loo ma laaj nag lépp loo ma wax dinaa ko def. mën naa ci dara. waaw oh, li tax loolu mooy seen dawaan mooy jubóobu. dëgg la waaw yow sawara nga moom ndox la. waaw hmm. bu ñëwee rek bu sottee day fay. Hmm. ñàkk a jubóo googu nag moo waral xët-xët geeg raf-raf gi bari. Hmm. waaw ba pare moom rabam xam rab daf saay-saay moom rabam da koy da koy ruux. léegi na bu ko rab bi ruuxee loolu indi énervé rab bu nekk nawet am na boo xam ne day mbëlee am boo xam dalay mbéj am boo xam dalay a dóor ndax rab kenn ko gis la waaye naa ko faj ba incha allah hmm. mooy raw xarum yar jeex na tàkk léegi danga may indil kii ci faj gi la xam nga Sénégal da ngeen mën a loo xamante ni mën a garaawal lu garaawul sëñ bi problème bi ma am nii fi ne loo ma laaj loo ma wax dama koy def damay indi peeco bee jox waaw ak kii am na fer yoo xamante cristal déedéet mu fi cristal cristal moom moo ko fi tudd moom bin bin déedéet déedéet rek feru kii la day sew ba pare waaw fer wu soppulu la sax fer yi boo ko gisee du muy am ñetti couleur. lumineuse. waaw lumineuse <laughs> ah, lumineuse ak bécco mu ko defee li may def ci laa koy def xam nga bécco bi ni mu lu ko ma may jël rab bi dëpp ko jël bécco bi def ko ni ko ni doon gisee rab bi mu koy ruux léegi bécco bi lay xool di ree ree googu nag mooy naa yi jëm ci yow bu ko defee. <laughs> lépp jeex jàmm rek waaw. yooyu yi ma ci def bari na. ah te daal béccoo kii kese nga ko amul leneen luñ ko mën a fajee lu dul samay béccoo ak samay sëy. Eh, xoolal boo bëggul nga bàyyi en tout cas déedéet bu bëgg jeex na dama ko andi. waaw benn bécco laa lay ak ay fer. waaw lumineuse bi nga wax waaw bécco jeex na. <laughs> jeex na maa ngi dem andil la ko. waaw na gaaw nee ma def ci lim ci def rek mu jeex. incha allah benn yoon nga noppalu. jërëjëf waay sëñ bi. nga waru leen am lu leen métti nga noppalu. ndax rangooñu jigéen ak rangooñu fas day delloo réew ginnaaw. jigéen warul jooy. yaawal. itu kayak apa kayaknya ini sama la wala xam kilifa la am na yoo xamante ne ñàkk fayda yooyu man lu bon di toogoon fi bu ma sax ah muy wax yow naa Nengah jual da ah, ah meroo waxoo ko dara di gën Furan. fuural yooyu jaadu na ci soxna kilifa waa alaaji yow boobu mi def sama sañ def jongo ma génn mu apprécier moom ay bëtam man sama yo? ah loolu nga naa lu sa xëy daa ko apprécier nga nga ngeen ko applaudir bravo ah te yow gis nga bi ngay dem lim la def gis nga ko. Eh, man bi ngay mi ngi natt di def nii natt. waaw man mi ma ne ginnaaw nu may gisee. di ah, nga alaaji rek leen yow mën nga nekk ci kër gi ñii. yow mënoo ma génnee ngay maslaa ak ñoom may maslaa ak sa bëkk néeg bi nga may bëgg rey noonu la mettee. Ah, yow man ngay defanteel. ma ne. yow loolu day benn man nu ma segg ak ñoom ah. ah kon yow daal da ngay da ngay fees su di di jéem a xool man lu may dem nga nga nga ni da ngay diyoog man. yow da nga xam ci ñàkk fayda. da nga maa xam ci benn ñàkk fayda. moo tax ma lay tontu ñàkk fayda moom kenn rek ko fi ci kër gi. ah ah yow loo bëgg a wax. kër gi man ma. kii yaa ngi ak yaa nga teew rek. la. ah <laughs> kii moom moo ma ko laaj dafa am lu may. ah tey rek kenn tudd la dafa am yoo xamante ne ci laa ko fekk moo xaw a laaj lii rek. moo laaj fer yi ak sër bi. waaw liggéeyam la moom. pour sama diggante bi am. mais tegal teg ci suuf sëñ bi man lii samay accessoire la de duma ko teg ci suuf xanaa waxantew ñu li ñuy waxante léegi ni waaw yow. jëlal yaa ko laaj jëlal defaral ko li mu. Mm. ma boo may defaral nga defaral boo ma defaralu nga wax ma ko. jox ko ma yóbbuwaat samay bagage ma jox. waaw ah. ah. jërëjëf ko laaj. fay bi ma jox la ko léegi. Eh, yow demal rek demal demal na dugal demal rek ba ba pare. di ma woo léegi. Oh! ma jaw. Ah, ma defaral lii de li moo tax sawaruma seen liggéey gis nga dañ koy dimbali li rawaan wee ko laaj te sax li sax ma jublu ci sax mooy pour yow xanaa rawaan bi caga ah. dama lay laaj rawaan bi moom caga la xanaa rawaanu jëkkëram mooy caga léegi foo ah, ah, te niveau technologie waa seen tiktok yow dangaa namm yi hmm. dama lay laaj yow dinaa chemise de nuit dinaa woddoo dinaa sol nalli man lan laa manqué waaw ngi noonu nag c'est que lii pécco la xam nga Béthio moo nar a rafet ci réew mi loolu laa bëgg a xëccaan nag ngir ñëpp di fàttali ko Béthio Béthio ngeen dul def yéen sër noonu day kon yow kay bi nga koy laaj lii dangaa bëggoon wet boo doo Béthio bi nga. déedéet dafa am jinne joo xam mooy siiwal li war a xaw ci réew mi moom laa jox bi bu ko woo doo ñetti yoon te ko suuf ñëppay kiiwaat Béthio waaye du man de bu yaakaar ni maa laaj Béthio bi de. bu la neexee sax nga jël Béthio bi yóbbaale. duma jooy duma yuux yow yow duma def dara yow duma la def dara yow yàlla na sama àq daal भेजो बेटा moom doomu am la dafa ëppal Kili lii tax jëkkëram du jubóo moom te dinañ ko rey ca àll bi ndax day tax suy mag ay waay beccoo ngi waay beccoo moo raar te amatul te dañ koo war di koom ndax beccoo fi mu ne nii bari ni ñuy meree te boo meree day tax mu ñu wax ñu waxati ci sëriñu TikTok e eh, mbay ñu wax ñu waxati eh, ci sëriñu TikTok e ma wax ma waxati ci sëriñ